kon maître laa. waaw ah. dinaa leen wan ne affaire bi nii la. nii la a léegi nag ñoom toll nañ ci guddi yoo xam ne nii lamb mënatu leen dépassé. Mhm. combat yi dépassé wu leen coow li bëri na trop. Mhm. mais wóor na su ma rakk bu xam naa ne ku si tëdd yaa ngi nelaw. ba gars lu ma def leer nañ la. mbër am na poids bi ngay am faale woo ko yor deux cent kilos. Mhm. am na fooy toll. billaay wala am na fu ngay toll ci làmb. doole ji xam gars yi dañuy dañuy dañuy jaawale doole ak masse nit day nekk fausse maigre da gis nit mu tuuti mais bis bu ngeen jàppantee lu runkum billaay walaay bis bu ar bis bu ne tàqali ko dootoo ko parce que yëg na ci yow doole joo xam ne da koy dépassé Tafa Gueye sànq nee na Eumeu Sène bu bu tuutee rek danger la waaw Pape Cissé maa ngi koy nuyu da koy wax tout temps saa yu gën a ndaw keroog la sama xel di gën a dal. Mhm. Mhm. Mhm. ñaata champion yi nga gis même waxuma la fii sax ba international xool Mike Tyson. champion du ñu yor yéen jëmm yi doy waar yooyu. waaw mais dañuy am dañuy am force boo xam ne. ci biir la nekk ci biir la nekk bu la dóoree ñu téye rek nga xam ne góor yàlla dóor na. ban combat moo gën a metti ci say combat. sama combat Gris Bordeaux. Gris Bordeaux. waaw sama nga de. waaw sama combat Gris Bordeaux moom <laughs> waaye combat bu combat la bu neex quoi vraiment jël naa ci ay coups miir naa ci miir yi neex. bi waaw. dem nga ci biir géew bi xamoo foo ne. non combat bu métti jël naa ci ay coups yu bëri moom tamit aussi xam nga làmb boo xam daal vraiment parce que Gris Bordeaux moment boobu ñu ngi ko fal troisième tigre de Fass. Hmm. jóob ko ci stade bi gars yi solal ko. yëre bi yére bi solal ko. solal ko Sabadoor bi bi. mu nekk waa waajal ko mu nekk première sorte am na mu war a dajeeg man. man tamit ma gis ni mooy suma première suma revanche ak moom. te moom moom ma tardel ci làmb. moom Gris. jël ba mu la daan waaw moo a tardel ci làmb en 2004 ah. waaw jugoon jub boo xam ne moom moo noo moom moo moo moo ma najoon naj bu doy waar. waaw comme bu demaan nag ba làmb boolewaat ma du ma bëggaat mu najaat ma. Mhm. donc combat la woon boo xam ne nii rek la combat munoon demee. mais combat boobu loo Gris. Mhm. Mansour combat boobu. Ah. li ma jàng man. waaw jàpp moo ko ñàkk la combat bi. mooy dafa bëri conseil yi. dafa bëri ay conseils yu bari moom la bëri ba pare di bëgg bëri ama seen di suivraale ay doomu aadama yu koy yu jox ay calcul. Mm-hmm. loolu moo ko ñàkk la combat boobu fekk na ëmma seen bi ko tibb bi bi. Mm-hmm. pour war ko def ramassement mais mais mais tibb tànk boobu li rëccaloo. Mm-hmm. li rëccu tànk bi lan la. Bécaye. Hmm? Bécaye lu rëccal tànk bi. boo xoolee combat Ibou <laughs> Ndapha. tànk boobu. boo xoolee <laughs> combat Ibou Ndapha Mansour Diop. fekk fa dara. <laughs> waay bàyyi ma waay. nga ne bu mi ngi nii. maa ngi li problème bi mooy que. parce que am na tànk bi ba pare. Hmm. mais Bécaye moom ñu ma xam dëgg duñu laal sumay tànk. ah man ñu ma xam dëgg kii doon na bëri may tànk. man ñu ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg. waay duñu laal sumay tànk. waaw mm-hmm. ah, parce moom. beneen affaire la. beneen affaire <laughs> waaw. beneen affaire moom mbër bu ko jàppee boo ci yàggee tuuti ma def ma daan la jël bu gaaw. nga daan ko waaw la bu gaaw kon kon yaakaar naa ne Mansour. ëmm mm-hmm. xol yi sedd nañu ah. trop. <laughs> ah tey mbokk yi bëggoon nañu. ndeysaan wane uh-huh. Pikine. Mm-hmm. la fa ne. Mm-hmm. nii koy def ak ñeneen. parce que ñun on est des démocrates ah. tey Pikine la. parce que Pikine dafa am position bu am solo parce que bu dee ñun ñi fekkee woon làmb. làmb ji mi ngi nekkoon diggante Pikine Fass séeréer écurie Njàmbur écurie Waalo écurie Boy Bambal